عليك صلاة commission santé bi xam ne ñoo nekk ci daara bi ci fédération Miftahul Wusul ila Hadratul Wusul bi mooy suñu quatrième édition fii ñu nekk élève lañu nekk si daara bi ba yàlla def ñu doon am suñu ba doon def médecine ñenn ñi def infirmier ñenn ñi def sage femme léegi ñu dajaloo ñeenti at ci ginnaaw ne léegi ñun tam war nañ mën a suñu mission xidmaal sëriñ bi jàppale ko ci euh, liggéey bi mu liggéeyal Baye Niass ñu formé suñu commission boobu ñu ci daayira bi ba pare ñuy euh, chaque année bu gàmmu bi jotee ñu def. consultation gratuite ak don de médicament depuis ñaari at boole nañ ci dépistage cancer du col de l'utérus ak ay dépistage ay diabète ak wàllu tension yi waaw pathologie bëri na parce que gis nga comme jamono ji seet bi dafa dugg ngelaw li am mais gis ne infection respiratoire yi bëri na tey jii nii ñu bëri ñëw nañ ci infection respiratoire yi grippe yeeg rhume yeeg sëqat si bëri na tamit mbiru tension bari na surtout si mag ak mbiru suukar également ñu ngi ko fi diagnostiqué feebaru suukar si diabète feer gis nañ fi tamit ay problème estomac yu bari xam naa stress beeg dang dang yi acidité estomac bi dafay gën a bari ci nit ñi donc estomac yi di xoosu donc loolu ñu koy gis gis nañ tamit ne euh, problème mu surtout ci ñu jóge jaaxle bi nga xam ne xale yi dañuy nekk ci àll bi wala ci suuf si di gëj a jël ay affaire u sang leen gis nit ñi nekk tamit ci dang-dang yi ci pays bi ñu ngi indaale seeni i seeni seen i coono yaram ñu leen ciy jàppale ñi nga xam ne tamit dañoo am ay migraine ay bopp yu métti sonn nañ fi trop te dem ñëw ñu may leen ci garab ak yeneen pathologie problème xol ak problème mu infection yi yu bëri problème biir yi ñu bëri ñu ci ciy ñu ngi ciy di leen may garab mais defaguñ bilan fin de journée xam naa ne ñu def rapport yi après pour xam lu ne rek statistique bi ñaata. depuis quand ngeen tàmbali yéen euh, ban année ngeen tàmbalee di def programme bi nga xam ne waa commission santé ñu ngi koy jàppalee sëriñ bi si liggéey bi. depuis 2015 la 2015 lañ sa sos kii bi. Euh, commission bi. comme que ñun suñu gàmm toujours de d'année lay doon ñu def ko première édition bi ci début 2016 ñu def début 2016 début 2017 début 2018 début 2019 début 2020 donc depuis boobu ñu ngi ciy def te ñu ngi ciy gis yokkute en nombre ci personnel bi début bi ay 4 personnes yi ñu te léegi yegg si nañ si ay 13 personnes donc toujours mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi gën a bari. garab yi ñu ngi si yokku te gis bàyyi bi si ñun taalibe yi bàyyi ñun taalibe yi ñoo def suñu bopp sas suñu bopp ay cotisation mensuelle ku nekk loo mën durant gàmmu ba gàmmu jotaat dañ ñi nekk fii si commission bi yëpp chaque mois weer ku nekk dina dugal dara. capacité ba gàmmu jotaat fonds boobu ñu dajale fédération bi tamit subventionné nañu benn somme boo xam ne dañu koy jàppale commission loolu la ñuy dajale jëndee ko garab jëndee ko euh, suñuy euh, matériel ak suñuy affaires yi nga xam ne dina dinañ ko dépistage bi aussi benn ONG benn partenaire suñu sage-femme bi benn partenaire moo koy jox produit yi muy defee dépistage yi andi ko mu def dépistage bi après ñu def continuer suivi bi si gynécologie loolu mooy dépistage cancer col de l'utérus salaatu llaahi thumma salaamu